الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوك جوليدي نغي سانت يالا يا خي الحمد لله على نعمه وشكر الله على آلائه نكوي نيان مو سوتي اي وامي خيوال تي محمد صلى الله عليه وسلم ak wa këram ak njabootam ak képp ku topp aw yoonam ba keroog pencum yàlla allahuma salli wa sallim ala nabiyika muhammad wa alihi wa sahbi ajmain ginnaaw loolu nu ngi soññaat suma bopp di leen soññ ci def li nu yàlla digal ci nim nu ko digalee ak bàyyi li nu yàlla tere ci nim nu ko teree ginnaaw loolu mbokk julit yi téere bii nu yor muy alquranul karim Yalla dako wacce ci yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bam ko tanne ci mbollem limu bind yoniko ko tere bi ngir mu don ab lampe di nital mbollem binde fi ngir génne leen ci ay lëndëm yóbbu leen ci leer noné ko yàlla melale mom alquran yalla ngi wax ci njal ben suratu ibrahim muni alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد يا لنا ابتيرينجي بو خامني واتي نانكو تي يوم محمد غير nga генن نيت ني تي لندم يا دوغال لين تي ليرغا تي سانديغول البروم تي موي لا جار تي يونو يالا ميغا خاني موي العزيز ديكو حاروكا تي موي الحميد ديكو yàlla it dafa wàcc alquranul karim ngir nu koy lëñ di ko xool di ko settantal ngir mën a jub ba jaar ci yoonu ndigaléem yi moytu yooni cereem yi xam ay xibaaram tënku ci ay njàngaleem yàllaa ngi wax ci njaal beenug suratu saad mu ni kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun li yaddabbaru ayaatihi wa li yatadakkara ulul albaab يالنا يننتو محمد دما واتي تي القران موي لو باركل لول واي غير نين ستانتال اي ايام غير نين ستانتال اي ايام نك موي غير نين تاغو تا يونو ديغلا يا باي يونو تريا نينا ولي يتذكر اول الالباب مبوكي جوليت يي القران الكريم لب ماغ دا يالا موكو ملال تي ماغ ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم يلا بيم وخان يونت بي مالا جوخ فاتيا واي مالا جوخ سخ القران جو ماغ جي قال القران لب لو تي بوغ كو دا فا ماغ نده واخي كو ماغ لا موي جل جلاله وعز كماله واي بوكو تي سارام يو nga xamne yu mag la ci lambo guñu lambo ay hikam di ay xerenteefu yalla waye lambo guñu lambo ay atté lambo guñu lambo ay ndigalé ki téré lambo guñu lambo ci indi ay solution ci problème aduna yi ci mbolém problème yi nak waye tek nit ñi ci yoon wa gëna jup ci seen digënté ak seen borom di pas-pas waye seen digënté ak seen borom ci jaamu yalla waye seen digënté ak seen morom ci jëflanté waye nit ñi téré seen aduna muy wala politique ba mana mel melokan wo xam ku len gis xam ci l'islam lañ tënku waye aya yoyu wala sar woowu lambu na yit naka lañuy sampé sampe am rew ba mu jup nek rew mu dëgër waye non it la tege ay yoon def ay giddu yu leer ngir jubal kep ko xam kilifa nga waye kep ko xam dañ la yilif kep ko xam koy àtte nga ak kep ko dañ lay waye ak nan la jubante ab armée sax ba mu tegu ci aw yoon saar woowu jàngale na ko waaye mu wax ay melokaan yu mat sëkk ci képp koo xam ne kilifa nga di jiite waaye saar woowu yëmu ca de làmboona ay maani yiirante gi war a dox ci diggante nit ñi damay jullit bu nekk wuuf mokkum jullitam ba bëtam du xonq te fekk na mu am lum ca man saar woowu moom lañ wax suuratu namli saar wi yàlla tuddee xorondoom soko don xol ci niñ ko téré ci bir kamil bi moy sar wi tollok ñaar fukk ak juroom ñaar ay versem di ay ayam mu ngi tollu ci juroom ñen fukk ak ñett bokk julit yi danan jema xuus ci lenn ci geejuk sar wowe ngir def ci ay taxaw setlu yo xamne daf ni gëna biral rek maggu téré bi di alquranul karim di nga xam sa borom dako ko ngir jubbanti nit tek ko ci yoon wa gëna jup tek ko ci dundin wa gëna jup lolo nak ci digënté verset 18 la ba verset 44 digënté diggante boobu rek falaa tibbu ñaar fukki taxaw seetlu yo xam ne gëna xam te gën ma bu fa taxawon man na fa génne lu ëpp loolu waaye cof nañ ca ñaar fukki taxaw taxaw seetlu danañ jooyal fukk yi tey bu yàlla dogalaatee buñ dikkee ñu jooyal yeneen fukk yi ca des bokk jullit di xaaj boobu ñu wax te mooy verset 18 ba 44 am na ay njàngat ak i taxaw seetlu ak jubbantiku ci yàlla di wane gees war a mën a jubbanti aw dundiin teg ko ci aw yoon boo xam ne buñ ko génne woon rek da mëna nek ab constitution bo xamni bu beru la fee ngir jubanti aduna teg ko ci yoonu jub bokk julit li ëpp nak li rot ci digënté bobu mi ngi dox ci digënté ñaari buur ñu discuter ci seen bir muy yonentu yalla sulayman yonentu yalla sulayman ak kuñ daan wax balqis la reine di Saba malikatu Saba ci mbirum politique rew ak nan lañu fexé ba sàmm jàmmam ak kolutem way ak nan lañu fexé fexe ba yaatal ab dëndëm bokk julit yi taxaway bu ñëk ba mooy danañ jang ci digënté ayat yoy ñu tuddu yëg go xamni ku ñu denk mbir nga am responsabilité ci solo ko war nga koy diko bayyi xel ak diko ko fuglu bépp danger bo xamne dafa wara ñew dal ci ñinga jité waro xol ak di jax ba ñinga jité am musiba xeyna kep ci sen kaw te fekk yow mi leen jité yego ci dara bis bu ne da nga war di fuglu bal bala dara accès ci ñom fekk na yek nga ko yow ba aw ko ba du accès ci ñom ñu koy jangé ci verset 18 ba yalla di wax ni hatta ataw ala namli qaalat namlatun yaa ayyuha namlu duxulu masaakinakum laa yaxtimannakum suleymaanu wa junuduhu wa hum laa yashcuruun yonent yàlla suleymaan yàlla daf ko mayoon pouvoir bu mu dootul may kenn muy nguur gu ànd ak ak nubuwa dig yonent yàlla tàggatal ko nit ak jinne picc yeeg lépp nekk ci ron maanaam ndigalam bis dafa génn di dem ak armée bu am doole boobee ba jub al muaskar maanaam ab lël mu askar mooy lël boo xam ne ay mellentaan ak xorondoom ñoo fa dëkk loolu mooy mu askar ci arab bi mu jugloo ak mbooloo mu bari mi kilifa xorondoom yi moo génn def alerte ne eh yéen xorondoom yi dugg leen seen néeg yi gaaw Suleymaan ngi ñëw te mën na leen a joggi écrasé leen te sax moom du ko yëg loolu kilifaay def loolu su problème amee balaa agsi nga def alerte. teel koo jóg aay bi lamboo na ñaari maanaa mooy teel def alerte ci danger buy ñëw waaye jox ngant ci ko juum ndax dani Souleymane même bu ko defee it ci eh, ci defu ko ci tayeef ñaareelu taxawaay bi mbokk jullit raddu ni'mati ila al mun'im wa shukruhu alayha saay su xéewal dikkatee yow kilifa gi wala yow nit ki sax ko simple kii nga jël ko kala ko jox sant ko ci te fexee nag transformé xéewal googee ci lu neex yàlla loolu mu ngi ñëw ci verset dix-huit dix-neuf ci même aaya bi fatabassama daaxikan min qawliha wa qaala rabbi awzicni an askura nicmataka allati ancamta calaya wa cala walidaya wa an acmala saalixan tardaahu wa adxilni bi raxmatika fi cibaadika alsaalixin maanaam bi nga xamante ni xorondoom mi wax na loolu Suleymaan dafa muuñ ci waxam ju réew la ju ju doy waar jooju tamatale mu ne ah, yàlla de defal nga ma xéewal yàlla nga ma may ma man la caa sant yàlla yàlla nga ma dugal ci sa biir xéewal man ak samay waay jur te nga yombalal ma yenkawal ma ma mën a jëf-jëf joo xam ne da nga ko sant te nga dugal ma ci sa jaam yi nga gërëm ci sa yërmande Suleymaan delloon xéewal gi ko yàlla defal te mooy tàggatal ko lépp bañ di ko liggéeyal néewul cur néewul maa ko def néewul ci sama doole la néewul ci sama njàng la waaye daf koo delloo yàlla loolu am njàngat mu xóot la moo xam ne nit ki su bëggee sax ci xéewal saa yi su ko xéewal dikkalati na ko delloo borom xéewal gi te mooy borom bi ndax wama bikum min ni'matin fa min allah nit lu mu am yàllaa ko ko jox saa yi soo sigiree ba jàpp ne kenn la defal lenn bis bu yàlla di ko jël si nga xam ne kooka mënu ca dara yàlla dina ko nangu bëccëg kooka di fa nekk te doo ca man dara moom du ca man dara du ko yëg sax far ñetteel ba mbokk julit yi te lañuy ñuy jànge ci loolu mooy verset vingt mooy kilifa gi njiit li dafa war di gëstu ñi mu jiite ci luñ nekk bis bu ne war naa xam ku ne ci loo xëy ku ne ci loo gont ndax moom lañu dénk seen mbir loola mu ngi ñëw ca wax yi wa tafaqada tayra fa qaala fa qaala maa liya laa ara alhudhuda am kaana min alghaa'ibin nee na Suleymaan dafa xëy war a dem mu tàmbali di gëstu ñi mu war a àndal di laaj di laaj ba agsi ci piccum jàmb jóob mu ni waaw moom mu daa ñëw tey wala daa dem ci fuñ ko santut loolu lu am solo la mooy buñ la dénkatee mbir mu mën a doon boo ci xëyee dee ca dee ko gëstu ku feebar nga xam ku absenté nga xam waaye jéem a xam lan mooy sababu absence am ndax nangu lu ñuy nangu la wala lu ñu war a teg ay sanction la ñeenteel bi mbokk jullit yi te mooy verset 21 war am nag fulla joo xam ne dafa war cikki jiite mu teg ay sanction yu sévère yoo xam ne dana jàdd dana teg ci yoon képp ku jàdd njiitit faw mu am way goog maanaam boo doonee ko lompoñ doon ko yoon jax koo xam ni ñépp dañ lay mën a jaar sàkk loolu moom bokkul ci melokaanu njiit njiit ni muy amee yërmande noonu lay amee nag ak dogu goo xam ne nag ku jàdd ku ne dina xam ne kilifaa ngi fi goo xam ne dina teg ku jàdd ci aw yoon waaye kilifa goo xam ne foofu foo ay neex bëcc bëcc yóbbu du noonu waaye it nag ànd ak loolu yëpp nag mu doon koo xam ni ko pare la ci dellu ginnaaw saay su demee ba gis ne lam jàppoon du noonu ndax dañuy wax ni al uqubaatu tudra'u bi subahaat maanaam ab sanction dañ koy delloo ci ay lënt lënt ba gën a néew mën naa tax kañu tuumaaloon ñu tegge lañ ko tuumaal parce que tuuti teg ay sanction ku defut dara it du tuuti juum ba bàyyi ko def moo gën juum ba teg ay sanction ku deful dara moo tax ci wàllu qadaul islaami ci wàllu atteb sharia dañ lay wax ne ne même nit ki bu fekkante ne teg nañ ci kawam ay chef d'inculpation yu baree baree baree bari waaye amul lenn lu koy firndeel wala am na lenn lu ko xajamal bu boobaa loolu ak lu ma ñàng-ñàng dañ koy teggi ndax atte boobee loolu mu ngi feeñ ci verset vingt et ci wax jim ni la u'adhibannahu azaban shadida aw la azbaxannahu aw la yatiyanni bi sultaanin mubin mu ni dee hut hut mi xëy dem dinaa ko mbugal mbugal mu tar ci bàyyi gi fi bàyyi li ñuy def dem di def leneen wala boog mu indil ma aw lay leer kon moom tel naa wane ni su ñëwee joxe ay ngant yu leer it dañuy dellu ginnaaw ci lañ waxoon kilifa noonu la war a mel saa soo jëlee ay sanction bëgg koo teg ci ku jàdd aw yoon te dem ba ca biir gis ni defut dara da ngay delu ginnaaw xal kilifa du ñëg ñëg nag mooy ginnaaw xas naa ko wax fokk mu am déedéet loolu taxut ñu maanaam ñu fal la dañ laa fal ngir nga doon ko mat tane ñi nga jiite maanaam doo ñëg mukk ci ni ginnaaw nii la rek nii la même bu àdduna bi di tukkeet li ma wax moom day am déedéet saa soo demee ba gis ne yaa juum defal taraajon mooy dellul ginnaaw ndax Suleymaan kat nguur la boole woon ak yonent waaye nee na kat hudhud mii su dikkee jox ma ay lay yu leer la ma ko naroon a def lépp ma bàyyi ko te effectivement loolu am ba mu ñëwee jox ko ay lay yu leer da koo nangu lay ya juróomeelu taxawaay bi mooy verset vingt-quatre fexe ba yar sa njaboot ñi la jiit ñi nga jiite ci ñu xam yàlla nangul ko maanaam yow loolu yow la njëkk arrangé ñu bari jàpp nañ diine day gàllankoor njiit waaye déedéet contraire ba moo am diine dafay tagatal ak njabot kilifa ndax nit ki gem ni yak baxut sandarma taxul mu ragal ko police taxul mu ragal ko atti taxul mu ragal ko waye dafa gem ni yalla ko tere koku am nga ko ba nopi du yak mukk ki gem ni sàcc dafa aram gëmu ko ndax dafay bañ ko ko japp tëj ko waye daf ko gem ni yalla ko ko tere koku am nga ndongo man am nga jabar gu bax kon nit ñi li ñi def ci alal ci walu sécurité genn wàll gi dong buñ ko defoon ci yar nit ñi bañ xam seen borom nangul ko wallahi nit ñi mën nañ leen a bàyyi ak seen bopp jaratul sax ñu taxawal ay tribunal ndax kenn du tooñ réew yi nga xam ne ñam nañ loolu bu ñu xëyee alal ji nga xam ne moom la ñu yor sa magasin sax booy dem di julli ji doo ko tëj sa magasin bi nga yor booy xëy di julli ji doo ko tëj bu guddee doo ko tëj nan nga koy bàyyee ndax lan kenn du ko laal kenn du ko laal moo loolu mu ngi ci verset 24 bi ñu wax léegi Hudhud bi mu xëyee dem moom daa génn nguurug Suleymaan dem tàbbi ci nguurug laa rendi Saba mooy Balqiis waaye ba mu demee nam ko fekke néexu ko te am picc la de mu ni wajadtuha wa qawmaha yasjuduuna lishamsi min duunillah wa zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum fa saddahum an is-sabiili fa hum laa yahtaduun bi mu ñëwee Suleymaan ko yow foo nekkan mun ko ah man de damaa demoon ba àgg ci benn mennum réew waaye fekk naa fa buur boo xam ne de la muy def jubut de maa ngi ko fekk muy jaamu jant jaamu wuñ yàlla te jëf jooja saytaane leen ko rafetal de ba dox seen digganteeg yàlla dox seen digganteeg njub li am picc ko wax picc mii nag ëpp na tawxiid ñu baree bare ci ay nit te moom xayru mukallaf kenn du ko àtte ëllëg di ko dugal àjjana baa sawar waaye xam na ni nguurug Suleymaan ñu ngi fa yar di ñu ci tawxiid ak kennal yàlla ak xam ak njub lolu motax bam gisé lam jëk repéré man na gis na fa lu bari bari waye lam jëk repéré rek moy jadd gi ñu jadd aw yoon kon kilifa gi bo bëggé ñama yar baj baj du am ci seen biir na leen yar ci diiné rek buñ ñëro ci diiné wallahi di nga noppulu da nga leen noppal juroom bennel bi mbokk julit yi moy adamul isti'jal fi isdar al hukm qabla taxaquq manam bañ a ci di wàcc ay atte lu jiitu ngay xam li xew kilifa day am ak dal ak lu mën a xew ak lu coow li bari bari bari rek yow la ñu jiital sa kàddu du kaddu koy taxawaalu ci mbedd mi sa wax du waxi kuy taxawaalu ci mbedd mi sa wax dafa am lu muy impacté bu baax a baax ci dunduk nit ñi ak seen sécurité ak seen liberté ba tax na bala ngaa jël sa kàddu di yëkkati na nekk lu wér moo tax ki nga xam ne moo di hut hut bi mu dikkee wax xabar bobu ak limi graw graw suleyman manon na naa jóg ni dañ dem dal ci sen kaw waye bo démé ci verset 27 ci même sura bi dafa wax ni qala sa asadaqta am kunta min alkaasibin mon ne ko waa baax na nañ li nga wax waye nak danañ def ay gëstu ba xam wax nga deug wala waxo deug parce que duñu jot duñu doylo rek sa kàddu dem dal ci kaw dit te fekk na ñun ñoo leen di togn bu boba kon faw kilifa bu ko ay xibaar dikelate mu teey ci ndax lam koy jural la ca gën a tuuti bokk na ci mooy tooñ ko deful dara waaye dem ba sa njaboot xam ni dangaa tooñ nga ñëg mënatoo dellu ginnaaw loolu baaxut moo tax kilifa saay soo déggatee ci sa njaboot loo jàpp ne du noonu teeyal gëstul xoolal ndax dëgg la wala déet su dee dëgg nga def ca la nga war a def bu dul dëgg nga gas ko daal di suul coow la daal di jeex taxawaayu juróom-ñaaral bi mbokk mi mooy wadu aliyaati albaxth wa taxqiq faw na nga wut ay outils ak i mécanisme yoo xam ne da nga koy teg ngir nga man di gëstu di càmbar mbir yi ndax loolu ci sa compétence yow kilifa gi la nekk sa compétence mooy nga wut ay mécanisme yoo xam ni ca la ñuy mën a gëstoo li xew ndax dëgg la wala du dëgg mais condamné nit koo xam ni defoo benn coono. ci jéem a xam ndax liñ koy waxal dëgg la wala du dëgg tegoo benn mécanisme yoo xam ne ñoom ngay mën a jaar ay appareil yoo xam ne ca ngay mën a wéruloo loola wala déet déedéet moo tax Souleymane bi loolu amee lim njëkk a def mooy dafa teg ay mécanisme yoo xam ne ca lay mën a xamee li kii wax dëgg la wala déet lu wax demal ci verse vingt-huit mu ni idhab bi kitaabi hadha fa alqih ilayhim thumma tawalla anhum fanzur maadha yarji'un mun ko demal nga yóbbu téere bii may bind soo demee nga jox ko ko soo noppee nga déglu lu mu lay wax waaw kon yónnee na def na ab bataaxal bi maanaa bu doon jamono ñu def na benn circulaire boo xam ni yónnee na ko Balqiis ba noppi nag di xaar réponse am ngir mu mën caa xame ndax lii Hudhud wax dëgg la wala du dëgg wala da ko suxlu rek wala da ko suxlu rek ndax buur ñi ko wër ñu bari la buur ab dungurukat wër na ko koo xam ne moom bis bu nekk promotion rek lay wër ci moom bis bu ne mu ngi koy waxal rek ay xibaar yoo xam ne dara du ci dëgg ngir mën a am promotion am na ñoo xam ne manque de honnêteté ma ne honnête ñu ñu ngi ci wetam saa yi suñ la meree lu mu gën a tuuti tuuti mën nañoo xëy bind ci yow dara loo xam ne dara du dëgg ci ay problème yu dox seen diggante yow ak moom yoo xam ni amul benn rapport ak lu jëm ci nit ñi waaye dafa am ak yow problème ca loola nag mu bëgg caa jaar ba yàqal la kooku mu ngi ci wetu buur kon buur mi nga xam ne nag moo jaboote ñooñu ñépp moo am mat nag am auteur pour mën a xàmmee ñooñu ku ci nekk la ngay def kon bokk na ca mooy nga teere wut ab appareil boo xam ni ñaare moom du juum résultat yam lay jox mënut a nekk lu juum mukk ndax da koy teg ca fa mu war a tegu moo tax yontu yàlla Suleymaan ni ko idhab bi kitaabi haadha fa alqih ilayhim summa tawalla anhum fanzur maadha yarji'un jëlal sama téere bi jëlal mbind mi nga yóbbu ko boo leen ko joxee ba noppi na nga toog déglu taxawaayu juróom-ñetteel ba ittixaadu bitaanati xayrin lil musawarati wa inzaruhum fi waqtin yufid kilifa faaw mu am ay conseil yu baax yoo xam day waxtaan ak ñoom ci liñ ko dénk waaye it di wax waxtaan ak ñoom ci waxtu wu am njariñ waxtu wu am njariñ mooy lan wax leen loo xam ne fa nga leen ko waxee danañ am temps wu xalaat waaye soo demee xalaat la ngay xalaat ba noppi di leen xibaar d'accord laajoo leen xalaat da nga leen xibaare kon booy am ay conseil na doon bu baax koo xam ni ku am dignité la ci boppam ku diiñ la du kenn koo xam ni dañ dafa jàppale dañ ko yóbbaale ndax nit saa suñ ko joxee lu ko jomb ñu man koo defal wala ñu def loo ko jëf ju jomb waaye nit koo xam ne jàpp na ni luñ teg ci loxoom da koo yeyoo am njàngam ak ko may expérience am moo ko ko may amul lu muy rendre kenn service moom li muy def rek mooy tegu ci ak njub ku jaar ci njub mu ne jaar na ci ku jàdd mu ne jàdd na loolu dafa kilifa gu ne da koo am waaye it nag ñooñu boo leen amee ba noppi nag nga leen nga leen di wax di laaj xalaat ci jamono boo xamante ne li nga leen di laaj dinañ ci météo xalaat dinañ am temps waaye na loo war a def midi dem ba onze heures nga doog leen ko wax ñooñu laajatoo leen xalaat da leen yëgal. motax ki nga xamantene moy lam reine moy malikatu saba bi lettre bobu ñewé lim njëkk def moy dafa dajale conseiller yépp ya ayyuhal la wax inni ulqiya ilayya kitabun karim conseil yépp la wo ci barab ba dajalo ak ñom daaru nadwa yeneen a ah, amna lu xew amna ab téré buñ ma fi indil pour lan pour laaj seen xalaat dajale xalaat yi ku nek wax ko bala mo jël ay décision mom d'accord mom lañu ñu waye nak dafa am ñu ma bokkal liggéey bi taxawaayu juróom-ñeenteel bi al ikhbar an haqiqati al amri wa hajm al khatar lil ma'niyin manamit nga wax leen deug deug mbir mi ni am ak dayo bi mu am dayo bi mu am nga bañ leen ko neub lu nek nga wax leen fi mu tollu deug deug fi danger bi tollu manam bul yokku waye bul wañi motax sulu malikatu saba di balqis li wax ci verset 21 bo delloo dafa wax ni innahu min sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla taalu alayya wa atuni muslimin mune ak ah xam leen rek tere bi mu ngi jóge ci buur bu ñu wax sulayman lam ca wax moy alla taalu alayya wa atuni muslimin moy tu len nak di reey reey lu ci man te fexe leen balaa sama na ak ci yéen yéen ñëpp ngeen nangool yàlla wuy si ma wax na leen dëgg-dëgg mbir mi fi mu toll ndax su leen ni woon jenn waaye ma yónnee ab ab ab kii de amul solo mën nañ ko jox ay xalaat yoo xam day tolloog lam leen wax wala boog mu yokk ko ñu jox ko ay yoo xam ni danger lay doon waaye kilifa gu nekk buy laaj ña muy laaj na leen wax mbir mi fa mu toll dëgg-dëgg ak fa danger ba toll bu dee dafa rëy bu dee dafa tuuti mu waxaleen ko nam amee te bañ leen koo nëbbu ndax li ngay jël ci ay conseil dafay tollook selon li nga leen wax waaye boo ci amee lenn luy nëbb rek mën ngaa fausseté sa programme te fekk na loole ci yow la loolu dañ koy jànge ci saar wii fukkeel ba mbokki jullit yi mooy al istisharatu wa talabu ra'yi qabla al batti fi amrin ta'umu bihi al balwa maanaam di laaj xalaat di laaj boroomi xel lu jiitu ngay dogu ci mbir moo xam ne bu ñëwee ñëpp lay laal parce que yow liñ la jox du sa fi bopp dénku la sa kër dénk ñu la sa tool dénk ñu la sa famille waye lu ñepp bokk lañ la denk bepp décision boy jël fay doon bo xamni ke gëna sori ci réew ma da koy laalaale ba tax na du ay décision xam da ngay nelaw ba yeewu rek naan sa café daal di bind ben circulaire ñu ne ko nit ñi jëfé loolu soko ko def di nga dugal sa bop ci kambu di nga dugal sa njabot ci kambu motax malikatu saba di la saba dafa woo mbooloo mi nga xam ne ñoom ñoo koy conseillé indiwu ko nag ci pénc ma ndax yaa ayuhal mala'u la wax loolu mooy wane ni dafa am ñu mu tànn ndax lii du waxi pénc lu la ñuy wax ñëpp di ci joxe sa xalaat lu jëm ci wàllu sécurité la lu jëm ci wàllu réew mi ñu bokk la lu jëm ci wàllu déstabiliser sax réew mi la ndax ab keneen di buur moom moo bind ab leetar jëme ko ci ñoom ngir tas seen nguur ba tax na loolu du lu ñuy waxaat waxtaan ci biti waaye borom xel ya ak ña am dal ña am dal am ay xel yu xóot ñoom lay woo moo tax mu ne yaa ayyuhal mala'u lan la wax qaalat yaa ayyuhal mala'u aftuuni fi amri maa kuntu qaati'atan amran xatta tashhaduun mu ne yéen samay conseil laaj naa leen xalaat ci mbir mi ndax xam ngeen musuma def dara lu dul ni fekke ngeen ko joxe ci seen xalaat muy la am solo maanaam boo amee ay conseil it dee leen wax lépp loo nar a def waaye bu dee lépp lu neex nga beru ko def ko dem ba nekk ci problème bëgg leen woo associé leen ci dañuy lànk wala buñ la jox xalaat duñ la jox xalaat yu ñu gëm waaye lu lay suuxal sax la joxe moo mu ni fi amri ma kuntu qatiatan amran hatta teshadun jox leen ma xalaat ci mbir mi musuma dogal men mbir lu dul ne fekke ngeen ko joxe ngeen ci seen xalaat juri loolu mooy fukki taxawaay yoo xam ne joyal nan ko